séisme footballistique avec l'élimination de la nationale Mannschaft dès le premier tour. Qui l'aurait cru Qui y aurait parié En plus, battu par la Corée du Sud, les Allemands ont déçu toute la planète du foot, eux qui étaient les favoris dans cette Coupe du Monde de Russie 2018. Pire encore, ils ont craqué au temps de Kim et 90 plus 7 buts de Son. Bravo aux Sud-Coréens. L'autre match du jour opposait au Mexique. Méconnaissable, les Sud-Américains ont subi et perdu à la 51e minute de jeu, but d'Augustinson pour la Suède. Puis, à la 63e minute de jeu, but de Granvis. Le capitaine suédois ne tremble pas et transforme la sentence d'un tir puissant expédié dans la lucarne gauche de Ochoa, 2 à 0. À la 75e minute de jeu, contre son camp, but d'Alvarez contre son camp, les Mexicains n'y sont vraiment pas. Pour les Suédois, 3 à 0, Quelle surprise Mais le Mexique termine deuxième de sa poule et se qualifie en huitième de de poule contre la Serbie. À la 37e de jeu, but de Paulinho. Coutinho porte le ballon à hauteur du milieu. Il aperçoit l'appel plein axe de Paulinho qui part dans le dos de Gabriel Jesus. Son ouverture parfaite, le milieu barcelonais devance la sortie de Skotkovic et marque 1 à 0. les Brésiliens. À la 69e minute de jeu, Thiago Silva marque pour le Brésil. Le défenseur Oriverde surgit sur un corner de Neymar. Il réplique au premier poteau et place une tête dans les filets. 2 à 0. On en restera là. La Suisse a fait match nul 2 partout contre la Costa Rica. Le Brésil termine premier de sa poule et la Nati est deuxième dans sa poule. Russie 2018, KSTV. mbetteel bu am tey ci football coupe du monde Russie bi. ci bii di waa national man shaft bu Allemagne nag dañ leen éliminer ci premier tour te kenn xalaatu ko woon kenn xaaru ko woon amul kenn ku naroon na teg dara ne Allemagne du génn tey mu ngi doon ci ak waa équipe bii di waa Corée du Sud Allemagne nag dañoo bett ñëpp àddunay football bi yëpp lañ bett te li ci gën a yéeme mooy waa Allemagne joué nañ ba quatre-vingt-dixième minute dugaluñ dugaluñu ba ñu demee nag ba quatre-vingt-dix plus cinq ci la waa Corée du dugal jour bii di Kim moo ibbi seen yi ñu demaat ba mu teg quatre-vingt-dix minutes plus ci la jour bi di son dugal pour waa Corée du Sud ñuy félicité di jaajëfal waa Corée du Sud ci dóor bi ñu dóor Allemagne beneen match bi doon daw ci bés bi nag mi ngi woon dox ci diggante Suède ak waa Mexique équipe sud américain yi nag kenn xàmmeewu leen ndax tey dañoo daj lool am coono lool ba ñu footballé ba cinquante et unième minute de jeu ci le jour Suède bii di D'Augustinson dugal pour waa Suède bañu ñu fubalee ba soixante-troisième minute mooy capitaine waa Suède loxul tiitul daal di jël sentence bi dugal ko mu doon dóor bu am doole ci lucarne gauche bu Ochoa ñaari bal ci dara ba ñu fubalee ba soixante-quinzième minute de jeu nag jour bii di Alvarez daal di dugal ci ay caaxam tey moom dëgg-dëgg waa Mexique nekkuñ ci équipe bu Suède dóor waa Mexique ñetti bal ci dara mu doon mbetteel bu rëy waaye teewul Mexique dóor nañ ko waaye moom moo mujj doon ñaareelu équipe bi gunge Brésil ci coupe du monde bi équipe bu Brésil boobu tey la doon joué matcham bu mujj ak waa Serbie ba ñu footballé ba 37 de jeu jour bi di Paulinho moom moo dugal pour waa Brésil ba ñu footballaatee ba 69e minute de jeu nag jour bi di Thiago Silva di capitaine u Oriverde moom moo jóg ca kaw daal di mbëkk benn bal bu ko Neymar passe muy corner mu dugal ko mbëkk ko ci premier pot bi mu daal di làmb caax yi waaye match bi nag foofu la mujjee équipe bii di Brésil dóor ñaari bal ci dara équipe bii di waa équipe bu Serbie équipe bu Suisse def match nul ak waa Costa Rica moom it boog Brésil ñoom bokkoon poule loolu waral équipe bi di Suisse tamit qualifié na équipe bu Brésil moo jël moo jël raw gàddu bi ci groupe bi ak 7 points équipe bi di Suisse moom moo ci topp ak juróomi poñ Russie 2018 KSTV.